poste boo xamante ni dafa yaatu ginnaaw. donc poste euh, waaw dañ kooku moom comme ni ko waxee sànq offre de soulagement la dafa nekk loo xamante ni dinañu dindil ay jafe-jafe yu bëri bëri yoo xamante ni doon nañ ko jànkonteel parce que déjà poste bi nga xamante ni moom fi nekkoon ñu nekkoon di ci liggéeyandi ça ne répondait pas aux normes. donc le fait ñu tabax fi benn poste de santé bu bes benn maternité bu bes qui répond aux normes dina tax d' abord accueil bi dina gën a jaar yoon dina tax tamit malade yi di gën a mën a fréquenter poste bi dina fa tax tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñu mën a liggéey ci ay conditions yoo xamante ni conditions yu jaar yoon la. une population de trente trois mille habitants ak le nombre de personnes de de malades li ñu recevoir. par, par jour et par mois. Donc 1000 à 1500 malades par mois. Je pense que parce euh, que ériger en centre de santé et vu les euh, référence par mois et par jour donc euh, je pense que parce que en centre de santé effectivement. war a ubbi tey rek maa ngi am réunion ak euh, waa waa gox ba pour que CM bi nga xam ne moom la ñu fa tabax ñu war xale yi war a commencé jàng actuellement ndax ku ci na xam ne ne école ubbi na te xale yi dañ doon jógee foofu dox ay kilomètres kilomètres mais loolu jeex na ci gox boobu donc bon suñu compagnonnage ak Dangote doonul tey li fi ñu ci wax war a wax yëpp bu ñu doon toog di ko xayma. mën nañu toog fii ba ngoon vraiment te loola du jeex donc bon ñu leen di sant di leen gërëm ci lii nga xam ne moom lañ ñu defal tey muy def fi benn poste de santé bu moderne boo xamante ne vraiment population yëpp dinañ ci mën a gis seen bopp ndax ku wax santé xam ne compétence transférée la te ñun collectivité territoriale yi peut-être suñu doole demewul noonu donc bu ñu ñëwee tey ñu orienté leen fii ñu bëgg def lii loolu mënuñu lu ñu sant ci yàlla sant leen ñoom itam. Euh, comme ni ngeen ko xamee tey dañu ñëwoon ànd le maire. Momar Ciss maire de la commune de Kër Moussa teg pose de première pierre poste de santé bu ñu war a tabaxal fii waa Kër Moussa donc loolu lu ko andi dafa am fu mu jógee maanaam ci waxtaan la jógee mooy lu ñu wax cadre de concertation bu ñu am ak différents communes yi du commune Kër Moussa ak yeneen zone yi ñu impacte donc te si volet RSE wu Dangote bi dafa am ñaari. wàllu ci am solo moy éducation ak santé wàllum éducation defal nañ len déjà ben collège fële sa ñaaxit boo xamante normalement bu nexé yalla ren xalé yi war nañ fa commencer Donc volet santé bi tam poste de santé lañ len di defal amoon na fi déjà ben poste de santé donc ñëwuñu pour réhabiliter comme mais dañuy tabax ak côté benen poste de santé parce que xam nañ ne poste de santé bo xamante day polariser plus de dix mille personnes tout na. donc bu ñu ñëwee ñun appuyer monsieur le maire defal ko beneen poste de santé à côté boo xamante ne day am dispensaire am maternité am chambre pour euh, infirmier chef de poste